alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdalil xalqi sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alxuril mayamin altayibin altahirin wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin mbokku jullit yi mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dellu santati borom bi subhaanahu wa taala waaye julli te sëlmal si ngeen ji bindeef sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amati mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci yaasin wal quraanil hakim ci weeru koor gi si télévision Futur Média ziar kilifa diine yi nekk ci réew mi ñaanal leen yàlla dafa leen gudd fan ak wér bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool lool lool si daraja sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di bëggee itam fa tabarakallahu ñi ñuy encouragé nekk ci réew mi ak si bitim réew di ñu ñaanal di safoo yaasin bi fa tabarakallahu macha allah ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen dëgëral si barke alquran barke weeru koor barke yaasin mu ngi noonu mbokk yi xam ngeen ne démb ñu ngi taxawoon ci aaya bi nga xam ne yàlla day wax ne ëllëg yowmal qiyaam ku nekk la nga indi si jëf rek moom lañ lay fay mu nekk bés boo xam ne jar na bàyyi xel bés boo xam ne mat na sóor waaye itam bés boo xamante ne nii bu jara jara jara Euh, yittewoo la ndax mooy bés bi nga xam ne mooy bésub dëgg la fay xew fa nit di dugg ëllëg dootu fa jóge ba ilaa yawmi diin am na nag ñoo xam ne mën nañ jaar si mbugal dugg aljana waaye am na ñoo xam ne ñu fa génn yàlla nañu si yàlla musal jaar fa sax ak seen ko yàlla nañu si dégg rek doy ëllëg yàlla nañu yàlla def ay niti aljana si barke yaasin barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa mat a bàyyi xel ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am bés am benn saxaaba bu génn àdduna ñu denc ko bi ñu ko dencee ba pare sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, rangoñ ña keroog tooyal na si ba ba mu siggee benn kàddu rek la wax ña mu àndaloon li misli hada fa aiddu lii naka ku nekk waajal si yéen ndax day ñëw te ju jaas muy dee yal na appasoriyanto ñi jiitu yal na leen yàlla yërëm xaar leen ajjana ñu ñi fi desandi yal nañu yàlla tënk si njub ak sutura ak mbaax ba bi balaa ñu leen di fekk te mu yeex si darajey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aaya bi ñu taxawoon na yàlla dafa doon wax ne fal yow ma tey bés bii mu yemal qiyam laa tuxlam du ñu tooñ nafsul kenn shay'an si dara wala ah, wala tujzawna du ñu leen fay illa ma kuntum lu dul la ngeen nekkoon na doon ko jëf kon jëf yi mat nay rafetal mat nay taaral waaye itam mat na di suturaal ndax yàlla nee na ëllëg yowmal qiyaam lu waay def rek moom la lay fay bu dee baax na nga xam ne mbaax nga fa fekk waaye bu dee sofaan itam nga xam ne yaa ko liggéey yàlla nañ ci yàlla musal mooy la ma waxoon rek fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara soo defee lu baax lu baax nga fay fekk soo fa defee sofaan itam sofaan nga fay fekk yàlla nañ yàlla atte si yërmandeem ak suturaam si darajey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa sana léegi ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy xaar ëllëg ndëg ñi nga xam ne dañu gëmoon yàlla gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dund gu neex gi ñuy am àjjana gund gu teey gi ñu am àjjana dund gu mucc ayib gi nga xamante nii moom moo leen di xaar yàlla nañu si yàlla boole yàlla ne inna asxaabal jannati ñooñ àjjana al yawma de bés bii muy yawmal qiyaam fa ñuy jëm mooy lu leen fay xaar yàlla nee na fii suxlin faakihuun danañu nekk si ay xéewal ya nga xamante ne nii yu neex a neex a neex a neex a neex la bu dee lekk gu neex aljana bu dee naan gu neex te du jeex aljana bu dee bànneex bu dul jeex aljana bu dee mbégte mu dul jeex aljana léeg-léeg xale yi naan sama mbégte mi xaw yàlla bu mu jeex waaw ku bëgg a mu dul jeex da ngay liggéey jaamu yàlla lu tax borom bi mën la yërëm ëllëg ba dugal la aljana yàlla ñu ko yàlla defal moo tax mu ne inna ashaabal jannati ñun ñooñ àjjana day al ma bés penc fa ñuy dugg sa aljana fii shughulin faakihun ñoom daal si ay bànneex la ñuy nekk si lekk gu neex lañuy ñuy nekk si naan gu neex la ñuy nekk si mbégte mu dul jeex daal la nekk yal nañu si borom bi subhanahu wa taala boole waaye itam ak jàmm joo xam ne du jeex mukk mukk allahu akbar léeg laasana nga nekk si àdduna di dund loo xamante ni doo bëgg mu jeex ndax ni nga yégee bànneex ak neex-neex yi waaye bés ñëw rek mu jeex waaye aljana nag yàlla nee na la fa am si bànneex si teranga si xéewal si luy luy neex doomu aadama bi yàlla nee na loolu moom du jeex day éternel mbokk yi est-ce que lii jarul jaamu yàlla liñ naan jarul xar sa tànk tubéy yi est-ce que lii jarul liggéey ba dee comme ni niñ koy waxee nga xam ne bànneex bu dul jeex lekk goo xam ne saa yoo bëggee lekk saa yoo bëggee naan saa yoo bëggee bànneexu si bànneex daal ngay wëy te dootul jeex allahu akbar yàlla bu mu ñu ump yàlla bu mu ñu ump yàlla bu mu ñu ump si daraja sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ne ndax si ñoom rek lay yem yàlla na déedéet hum ñoom gaa yooyu wa azwaajuhum ak seen ay soxna yañ fay am fii zilalin si ay ker la ñuy nekk alal araiki nekk si ay njoowaan ak ay lal yoo xamante ni mu takki uuna fa la ñuy tëdd waaw ay njoowaan yi lal yoo xamante ni fa tabaraka allahu macha allah automatique lay doon dëkk kenn du la toog di la njoowaanal waaw na ko yàlla bind bët ma su ko gis ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aljana fiihaa maa laa aynun ra'at la nekk aljana nee na kenn ma su ko gis si àdduna wala udunun samiat lañ fay dégg nopp ma su ko dégg allahu akbar wala xatara ala qalbi basharin doomu aadama mënu ko sax xalaat ndax taar ba ndax nooyaay ba ndax neexaay ba yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal moo tax yàlla ne hum gaa yooyu dugg àjjana wa azwaajuhum ak nañ fay nekk seen ay soxna fi dilaalin si ay ker la ñuy nekk alal araiki nekk seen ay lal yu nooy yu neex yu bakkene muttaki'uuna di njoowaanu di bànneexu rek fa tabarakallahu ahlul janna yatana'amuunahum wa zawjaatuhum taxta dilaalin waarifa ala asirra jamila muriha allahu akbar bànneex rek waaw si ay lal yu nooy yu neex yu bakkene naaj du la rey ay am chauffage du la rey amul clim bi dafa ëpp wàññi ko amul dafa wàññi dafa tuuti euh, yokk ko déedéet équilibré macha allah lépp nooy lépp neex yàlla mu ne la lahum tat ñoom fii haa sa aljana jooju nekk faakihatun danañ fa am ay xeeti firiw ba ñu bëgg wala hum ñoom itam dana leen ñeel maa yaddaun lépp loo xamante nii rek seen bëgg-bëgg la yàlla nee ne dañ ko am ëllëg sa aljana ñan ñoo koy am ñi gëmoon yàlla gëm lislaam nekk si ba borom bi subhanahu wa taala jël leen moo tax mu ne la lahum ñeel na leen gaa yooyu ñooñ àjjana fii fiihaa sa aljana jooju faa faakihatun xeeti fir wi bu leen neex waaw loo xalaat rek mu ne daraas sa kanam allahu akbar wala hum fi maa yaddaun wala hum ñel na leen sa àjjana jooju itam maa yaddaun lépp loo xamante nii rek euh, euh, euh, demandé nañ ko léeg-léeg sa xel nekk si dara rek mu ne jamet sa kanam sa aljana waaye léeg-léeg nga ne waa man te maa lii ñu andil la ko allahu laa ilaha illa xam naa ne nga yéen yi ak njaween yi moom yowmal qiyaam moom yërëm naa leen seet tët tët mais alhamdulilah foofu amul toilette ndax lu nit lekk mu waroon génn fa mu daan jaar si àdduna rek ñaq bu ànd ak parfum bu kenn xamul lu muy doon la borom bi subhaanahu wa taala di transformé mu génn si doomu aadama bi allahu akbar foofu amul toilette de déedéet toujours rek wala day neex rek aljana jar naa liggéey ba dee laase na aljana jar naa liggéey ba dee moo tax àdduna du kër léeg-léeg ñu nekk si di daw di nàngam di nàngam waaye dem ba tollu foo xam ne di nga xam ne ah ndekete yëf yi na ma ko fooge woon ak ni muy deme du doon benn ah nañ ko bàyyi xel day am solo moo tax mu teg si ne yàlla ne salaamun qawlan min rabbir rahim yàlla ne ne fi ngeen nekk day jàmm ngeen fii dégg muy nekk kàddu boo xam ne day bàyyeekoo min rabbin si borom bi nga xamante ni rahimin mooy yërëm ku ko soob yowmal qiyaama ay wala hum fawzun azamu wa karamat ajal xiina yukallimuhum arrahmanu rahim fa yuxayyihim bisalaami alayhim min allahi alladi anama alayhim wa rahimahum wa sarrafa anhum alazab fi fa yaa qurrata uyunihim allahu akbar yàlla nee ne salaamun jàmm ngeen fay dégg bu boobaa mu bàyyeekoo jàmm jooju xawlan kàddu goo xam ne fan lay bàyyeekoo min rabbin si borom bi rahim mi yërëm ku ko sobba ba dugal ka aljana yàlla nañ si bokk yàlla nee na bés dana ñëw rek moom borom bi subhanahu bu ñu duggee aljana mu ñëw nañu asalaamu aleykum allahu akbar si kàddoom moom borom bi subhanahu wa taala waaw yàlla ngeen am jàmm waaye yàlla ku mu ne yàlla nga am jàmm sa jàmm dootul jeex nañu yenente ajjana nag ku nekk xaj na fa ñëpp xaj nañu ajjana waaw bu kenn yàqal kenn nañu ko yéenante te di ko ñaanalante waaye itam te di ko jaamoo borom bi subhaanahu lu tax ñu mën a am yërmandeem ba kàddoom googu ëllëg ñu mën ko dégg ban kàddu la salaamun jàmm buy bàyyeekoo xawlan ay kàddu yuy bàyyeekoo min rabbir rahim si borom bi nga xam ne mooy yërëm ku ko soob dugal ko aljana xam ne dañuy toog rek ba si yàlla ne asalaamu aleykum ñan la ngeen am jàmm wala jàmm na wàcc si yéen allahu akbar waaye bu boobaa bëgg si bokk ñu ne dem leen àjjana da nga gis ñoom dañuy dekki ne ñu ne waa àjjana ñi ñuy buruxlu li xale yi naan buruxlu waaye boobaa yàlla si personnalité am yàlla si fullam ak fay dem na wamtaazu al yawma ayyuhal mujrimun wamtaazu yéen ñii di buruxlu nekkoon ay kàccoor na ngeen génn si rang bi bokku leen si xam nga léeg-léeg sax nga dem fenn si fi àddina ñu ne ana ñi ñu invité wala ana ñi nga gis ñuy buruxlu yàlla na boobaa yawmal qiyaam buruxlu du am waaw wamtaazu al yawma ayyuhal mujrimun bu yàlla waxee malaaka bi mu ëpp bufta bi ba nit ñi dajaloo ñi war a dem àjjana taxaw na le yàlla na boobaa da gis ñuy buruxlu waaye am ku leen wax neen infasilu anil muminin wala taxtalitu bihim fa fa lakum xaalun wala hum xaalun boobaa malaaka mi ne leen eh yow eh yow bokkoo si génnal taxawel na le yow xam nga sa bopp yow taxaweel na le yow arrièreal doo ko dégg rek rek laasana nga gis ki bu ne la eh eh benn policier wala gendarme ne la eh, eh, eh yow arrière la am ñoo xam ne buruxlu rek la ñuy def ba bu yowmal qiyaam day am buruxlu yàlla ne nag bu waa ñi di buruxlu yëpp dañ leen di génn wamtaazu génn leen al yawma tey jii si bés bii bés penc bu tàng bii kër gi ngeen bëgg dugg ayyuhal mujrimuuna yéen kàccoor yi génn leen bokku leen si boobaa ñi di buruxlu dañuy xam seen bopp génn ndànk dem taxaw yàlla teg si ne alam ahad ilaykum yaa bani aadama allaa taabudu shaytaana innahu lakum aduwwun mubin alam ahad xanaa waxuma leen wala yónnee moo woon wala avertir ma leen ilaykum yéen yaa bani aadama yéen doomu aadama yi allah taabudu ngeen bañ a jaamu as seytaane seytaane innahu naka moom lakum ñel leen aduwun ab noonu la mu biinun bu biir loolu lay wax kàccoor yi ñii di buruxlu bu ñu leen génnee ba pare ba tege leen ne le yàlla ne leen alam ahad ilaykum yaa bani aadama allah taabudu seytaana innahu lakum mu biin xanaa waxuma loon woon ne démb si àddina ne bu leen toppa seytaane waxoon naa leen ko wala waxuma leen ko woon li ngeen topp seytaane ba mu noot leen ngeen ñëw tey bëgg a buruxlu taxaw leen ne le moo tax mu ne mu ne alam ahad ndax waxuma waxuma leen woon wa si li ma yónni woon sama yonent ilaykum ñu jëm si yéen yaa ba bani aadama yéen doomu aadama yi toppoon seytaane allah taabudu seytaana bu leen jaamu seytaane ndax seytaane toujours li muy defloo jaam bi rek mooy lu ko lu tax mu koy gunge ëllëg safara moom xam na fi mu jëm waaye nee na woon yàlla du fa wet am na ñoo xam ne danaa yàq seen xel dox si seen maayin ba ker balaa ñuy weddi di jaamu leneen wala di ma jaamu man ba ànd ak man ëllëg safara yàlla ñu si yàlla musal yàlla nag ne seytaane moomu ma leen waxoon bu leen ko jaamu innahu naka moom lakum ñeen leen aduwwun ab noon la bu biir bu déclaré ne moom seen ab noon la waaw sab noon nag doo ko doo doo doo doo ko yaatal sab noonu doo ko topp si li mu bëgg sab noon doo ko topp si li ko neex ndax seytaane dina la jax-jaxal léeg-léeg mu jaar la si sa bakkan ba man la waaw moo tax ñu ne léeg-léeg ku topp sa bakkan dina la dugal si nga jullee si jàkk ju la neexul waxin la déggin la laaj maanaam ku topp sa bakkan dina la def loolu loo xamante ni ëllëg réccu rek la lay la lay dugal moo tax yàlla teg si ne wa an ibuduuni na ngeen ma jaamu haada lii nag siraatun mustaqim lislaam bii alquran bii lii yonent yi indi ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yoon wu njuppi ndax mu ne wa an ibuduuni na ngeen ma jaamu man yàlla bu leen ma bokkaale ak kenn bu leen ma bokkaale ak len teg si ne haada lii alquran bi lislaam bi siraatun mustaqimun mooy yoon wi nga xam ne moom moo di yoon wu jub wi nga xam ne ku ko topp ëllëg aljana nga jëm yàlla nañ ko yàlla borom bi subhanahu wa taala defal mu ngi noonu mbokk yi aaya 61 la ñu toll fa tabarakallahu xam ngeen ne suuratu yaasin euh, mu ngi nekk 83 aaya juróom-ñett ak ñett ñu ngi aaya 61 ëllëg insha allahu taala ñu ñëw yeggali tafsir bi yaasin wal quranil hakim si télévision Futur Média gërëm bu baax ñi ñu àndaloon si technique bi euh, euh, laasana am ak ñoom ata ak ñëpp fa tabarakallahu ñaanal président Youssou Ndour yàlla yokk ko dëgëral sutura teranga àdduna ak àllaaxira ak mbooleem employé groupe Futur Média Sénégal yëpp yàlla def fi jàmm may ñëpp xéewal ak sutura ak teranga àdduna ak àllaaxira si daraja yaasin wal quranil hakim ëllëg ak jàmm incha allah ñu ñëw yeggali aaya ba sa topp muy wala qad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqiluun asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu